safar sant yalla bu baax euh, bi nga xamné indi ñu tay euh, ci la ville sainte de Touba euh, pour indi li nga xamné sous suñu contributions contribution en tant que ministre de l'environnement et du développement durable ci tektal ak ndigalu son excellence le président de la république ki nga xamné mom wax nañu def sunu kéemtalaay kattan euh, pour que édition de Magal soit une réussite sur tous les plans Lolo waral euh, bu ñuy dégmal le plus souvent Magal de Touba bi nga événement religieux de dimension internationale ay millions de sénégalais millions de Sénégalais venant de tous les coins du monde Nous euh, war euh, li nga xam ne moom mooy nettoyer dëkk bi euh, waajal bi nag euh, lu muy laaj bëri na lu muy laaj motax ñu indi sunu contribution ci li nga xam ne moom la la ville de Touba et ses environs indi nañu nak matériel yu bëri mënuma ci wax lim yi nous indi nañu peut-être asaka yéné liñu yéné wona indi xëy mais nous nañ ne euh, euh, euh nit ñi nañ euh, permettre li nga xamné opération réussite en tant que ministre de l'environnement je bi may dugg sank Touba sama sama xol dafa sama xol dafa parce que bo ñaari gis ñu commencé à reboiser reboiser té mu joggé ci le khalif général euh, en tant que ministre de l'environnement sa sa xol dafa wara parce que lool le euh, président de la république euh, diglé, moy dafa bëgg ville yépp nat ville yépp verte da bëgg all bi yépp verte donc ku melni nak khalif général bu joxee tegtal moom ci boppam jàpp nañ ne ñëpp dinañ ci dinañ ci topp loolu moo tax am nañu yaakaar bu baax a baax ci projet bi nga xam ne ñu ngi ko sumb ci yàlla teg ci loxoom pour mu réussir ñu ngi ci sant yàlla bu baax euh, di remercier autorités yi nga xam ne ñoom ñoo ñu teer si di remercier également ñi nga xam ne ñoom ñoo yore commission bi nga xam ne moom la moom moom moom la ñu jiital ñoom la jiital ci liggéey bi nga xamné ne bu am solo bi ñu ngi sante yalla bu baax di remercier ñep di remercier monsieur le maire ki nga xamné ne mu ngi fii sama wet euh ñewna nak ak euh, ñi nga xamné ñom ñoom ñoo ŋànk ministère de l'environnement et du développement durable pour indi suñu njàppale ci li nga xamné mom moy mooy bi nga xamné mom moom amal fi dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba. salaatu सफर